salu les amis ziar naa leen bu baax a baax dal leen ak jàmm ci seen podcast Wolof teg ah, bi leen di jox lépp lu jëm ci wàllu informatique ak nouvelle technologie maanaam xarala yu bees yi ci kàllaama wolof alors weekend bi rek ma nekk na loo xam ni dama koy yàkkam ci trop ndaxte dañ ciy jàng ay xam-xam yu bëri ak suñu invité yi ça fait deux ans bi ñu tàmbalee podcast bi ak léegi yaakaar naa ni auditeurs yi ah, min nañu rendez-vous bi te li ñuy def aussi amal na leen njëriñ bu baax a baax alors am na aussi nag benn lien boo xamante ni partagé nañ ko tey ci épisode bi nii euh, ci description bi euh, mën ngeen dem ci lien boobu noonu pour fexe tontu suñu question yi nga xamante ni ñu ngi ko posé foofu noonu pour gën a xam aussi lan nga xamante ni moom ngeen bëgg euh, pour ñu changer bi defaraat ko ba nga xamante ni day méngoog li nga xamante ni moom la auditeurs yi soxla alors yaakaar naa ni nag ku déglu suñu ñaari épisode yi ñu passé di nga xam ñan ñooy Microsoft maanaam entreprise bi nga xamante ni ñoom ñoo defar système d'exploitation bi ñu naan Windows ñoom nag ginnaaw Windows ñoo ngi proposer yeneen service yeneen logiciel yu bëri yu ci mel ni Microsoft 365 euh, nga xamante ni moom lañ doon waxtaanee épisode bi passé ak El Hadj Malang tey nag dañuy wéy ci beneen produit wala beneen service boo xamante ni Microsoft aussi mu ngi ko indi mu nekk Azure wala sax service euh, bi Microsoft euh, di proposer ci wàllum cloud alors mais lan mooy ali lan mooy Azure lan lan mooy sax cloud déjà lan mooy Microsoft Azure ak lan la euh, indi ci wàllum cloud lan la Azure indi aussi ci marché bu te mu wuute ak ñeneen ñi nga xamante ne ñoo ngi def comme moom euh, yu ci mel ni ay AWS ak yeneen yeneen yeneen demee noonu euh, sama mbokk développeurs yi aussi naka la ñu mën a jëfandikoo Azure ci li nga xamante ni moom la ñu liggéey est-ce que Azure am na sécurité fan ak naka la ñu mën a def ba euh, maîtriser Azure jàng ko am am nay certification ak formation yu demee noonu alors loolu yëpp nag pour waxtaan ci tey dañuy ànd ak suñu invité bi nga xamante ni moom lañ dalal mu nekk Ibrahima Mbodj nekk koo xamante ni euh, day tàggat ndaw ñi day tàggat ndongo yi xam-xam dafa màcc ci lépp lu jëm ci cloud yi nga xamante ni Microsoft mu ngi koy proposé ci marché bi alors Ibrahima nuyu nañ la dalal ak jàmm ci podcast Wolof Tech. El Hadj Ibrahima maa di ci invitation bi euh, maa ngi am kontaan de bokk ci euh, ci émission bi tey maa ngi la doon suivre si yeneen euh, yeneen émission yi en tout cas replay yi mhm. et li ngay proposer c'est très intéressant ñu ngi siy jàng lu bëri mhm. surtout échange yi mhm. donc di am mbégte bokk ci émission bi tey macha allah ñun ñoo gën a kontaan tey parce que tey dañoo dalal benn master bu mag euh, tey rek laa posté euh, annonce bi mais maa ngi jot ay messages yoo xamante ni gars yi ngi gars yi ngi yàkkamte émission bi ñëw quoi. <laughs> alors comme dama sopp nag aussi euh, am na yenn am dugg naa ci sa benn blog euh, bu tudd Ibrahima dans la cloud euh, wala Ibrahima ci biir niir yi parce que je pense que niir moom la ñuy wax mooy nuage ci français moo nekk aussi. waaw waaw defe naa loolu la waaw. voilà mu nekk cloud aussi ci anglais quoi alors gis naa sa blog boobu noonu mais xam naa dinañ ci waxtaan ci biir épisode bi nga wax ñu lan nga proposer ci blog boobu et tout ça nest pas. problème. ay cooy Ibrahima ñu dem donc ci suñu épisode tey bi maanaam Microsoft Azure quand les apps les données les infra logent dans le cloud maanaam application yi données yi jumtukaay yi yépp bu ñu nekkee ci biir niir yi lan la ñu am exactement alors euh, yaakaar naa ni euh, ñu bari xam nañu lan mooy télétravail maanaam toog sa kër di liggéey mel ni yaa ngi ci sa bureau di mën a jokkoo ak say collègues def say réunion jëfandikoo jumtukaay yi nekk ci entreprise bi comme si sax yaa ngi réellement ci biir entreprise entreprise bi euh, te pourtant yaa ngi toog sa kër. alors ci Covid 19 bi je pense que ñu bëri def nañu télétravail tu vois ci sama mbokk informaticien yeek ñeneen ak ñeneen ñu bëri def nañ télétravail te xam nañ lan mooy télétravail loolu nag su mënee am yaakaar naa ni li ñuy wax cloud computing joué na ci rôle bu am solo Azure mu nekk euh, maanaam euh, wane mën-mënam pour wane mën-mënam aussi ci wàllum cloud moom tamit Microsoft loolu nag la ñu fas yéene waxtaanee tey ak suñu invité bi Ibrahima Mbodj euh, nga xamante ni xam-xamam dafa màcc ci mbàllu moom alors lu tax Ibrahima pas parce que sama toomaa la mais parce que xam-xamam aussi dafa màcc ci affaire cloud macha allah parce que li ma ko waxee léegi rek bi ma posté affaire bi gars yi am na ay réaction yu bëri ñu def alors turando kan mooy avant sax ñuy dugg ci sujet bi kan mooy Ibrahima. mais tamit est-ce que mën nga ñu wax ci sa jaar-jaar waaw maa ngi maa ngi lay um, jaajëfee si question bi mhm. donc man maa ngi tudd Ibrahima Ibrahima waaw comme yow <laughs> Ibrahima Ibrahima Ndiak Ibrahima Ndiak Ndiak mooy sama maam Ibrahima ah. Ndiak Mbodj ah macha allah ok euh, donc man maa ngi maa ngi juddoo Sénégal màggee Sénégal donc maa ngi quitté Sénégal après euh, licence bu ma defoon euh, licence informatique de gestion ISM Dakar euh, après ma ñëw euh, ma ñëw France euh, def master mais continuer wu ma ko. maanaam master 2 bi continuer wu ma ko parce que dama commencé commencé commencé liggéey donc au début dama ko bëggoon kii bi parce que kii la nu mu sax européen d'informatique approfondie la donc tu avais plusieurs années pour mën ko mën ko mën ko def. avant avant muy expiré bon ba ma commencé liggéey nag commencé liggéey nag liggéey bi xaw a tar bon. Mhm. Euh, moo tax moo tax yeggalewu ma ko. ok ok euh, mais euh, donc. Mhm. Euh, li ñuy wax un peu parcours un peu atypique la mujjee mujjee doon. ok sama plan. <laughs> je vois. Mais, en tout cas euh, sama mm, indil na ma parce que. parce que li yi ma yaakaaroon yëpp am na yoo xam ne li ñuy wax li tubaab di wax plafond de verre yooyu yëpp mujj naa ko dépassé parce que dugg naa ci euh, ay état d'esprit yoo xam ne euh, nekkul nekkul diplôme bu gën a kawe rek. moom moo la fay dugal. exactement loolu dëgg la. wala wala wala wala ñuy sous-estimer sa compétence parce que amoo diplôme bi wala diplôme B. ok ok ça c'est vrai. Mhm. loolu am donc voilà un peu un peu sama sama sama parcours bon après j'ai fait euh, plusieurs euh, types de nan la koy waxee sax on va dire j'ai gravi les échelons parce que j'ai fait du support euh, def naa euh, administration système et réseau euh, après ma dugg ci ingénierie dugg ci architecture. Mm -hmm. donc ci architecture instant bii nii euh, la la nekk. bon après en dehors du support moom architecture daanaka sooy def ingénieur rek yaa ngi commencé dugg ci architecture parce que balaa ngaa déployer dara xam la mooy sa cible xam un peu la mooy la mooy bëgg-bëggu mhm. client yi la mhm. mooy seen seen mbébét ci li ñu bëgg a def exact euh, nga jàppale leen tamit ci euh, ci ñu mën a atteindre seen objectif mhm. donc loolu mooy loolu mooy kii bi ça c'est extraordinaire je pense que jaar bi am na solo bu baax a baax a baax a baax et euh, comme ni nga ko waxee léegi dafa nekk loo xamante ni lu am solo la c'est pas diplôme kese mooy tax nit am xam-xam nit moo koy fàggul boppam moo koy wutal boppam ci itteem donc ittee rek moo am solo pour que nga am xam-xam mais euh, diplôme bi peut-être day sanctionné ne ah koy ñëpp seede ne kii am na xam-xam bi tu fi muy amee solo dëgg mooy nga dem nekk en face réalité yi nga war a mën a indi sax euh, apport ci li nga xamante ni moom mooy nekk problème yi ngay fekk ci biir entreprise bi wala feneen ak feneen donc xam-xam daal nekk na loo xamante ni du diplôme kese mooy wane ne am nga xam-xam mais mën nga am sax xam-xam sax te du am diplôme bi diplôme bi te loolu tey euh, Ibrahima wane na ko te exemple la boo xamante ni tey bu ñuy wax Microsoft tey man bi ma commencé wax épisode bi sax di wax affaire Windows ñëpp dañ ma pointé doigt ne Ibrahima quoi donc tey donc loolu euh, firndeel na euh, loolu yëpp quoi alors Ibrahima euh, ci sunu saison yi 4 yi passé nag waxtaanoon nañu ci saison 4 épisode 12 sax waxtaanoon nañu ci lan mooy cloud avec Arona Ba ak Mohamed Mengi maa ngi leen di saluer de passage alors mais Ibrahima est-ce que mën nga ñu ñëwaatal tuuti ci lan mooy cloud ak njëriñam comme ça auditeurs yi gën a yeewaat am benn dose tuuti fàttaliku affaire boobu noonu. waaw Claude si liñ ko mën a waxee nu mu gën a yombee rek mooy mooy évolution un peu évolution internet. ok parce que parce que bu njëkk bu njëkk da nga doon am euh, ay réseaux yoo xam ne ay réseaux privés la ay réseaux yoo xam ne c'est pas étendu donc maintenant avec euh, développement internet bi da ngay gis euh, da ngay gis ay réseaux yoo xam ne dañuy ñëw ba ci yow ba ci sa kër. Mhm. Euh, par exemple euh, ay Outlook point com ay Gmail point com ay Yahoo. donc même anciennement sax gars yi gars <laughs> am expérience xam nañ ay. Mhm. ay caramel ay affaire donc yooyu noonu moom mooy. moom mooy <laughs> waaw waaw. évolution internet maintenant maintenant nag am na ay fournisseurs yoo xam ne. bon euh, lu si mel ni ay euh, Microsoft euh, Amazon ak d'autres d'autres kii nan nañ koy waxee sax d'autres fournisseurs ñoom ñu ngi développé ay ay ay technologies yoo xam ne nekkul ñëw rek andil la loo xam ne c'est personnel donc li ñu lay andil mooy loo xam ne c'est professionnel par exemple mën nañ la andil loo xam ne réseau la loo xam ne stockage la loo xam ne Euh, pour sa mbokk développeurs yi par exemple. xam ne dañ lay da permettre nga développer depuis sa kër. depuis n'importe quel endroit. donc il y un tas de choses yoo xam ne moom mooy permettre nga définir cloud parce que nekkul nekkul rek da ngay ñëw jël sa benn data center wala jël sa benn centre de donnée nga def ci équipement rek ne loolu mooy cloud. parce que parce que benn benn instant cloud bi mhm. bu fekkee sa kër rek la yem. waaw du jëriñ ñu bëri yaakaar naa. du jëriñ ñu bëri day day day day. mais te benn place quoi te du tax ñu. naan voilà voilà collaboration et tout ça voilà. Mhm. c'est ça donc li tax li tax mu ne li tax mu intéressant mooy. da ngay da ngay day day um, day jox possibilité. ku mhm. nekk Afrique ku nekk Europe ku nekk mhm. euh, États-Unis ku nekk Asie. Mhm. ñu mën a ñu mën a jokkoo. di mën a collaborer si si ay environnement yoo xam ne c'est abstrait. des environnements virtuels. exact euh, ñu lay permettre ñu mën a liggéey ci lu ñuy wax euh, modèle opérationnel c'est-à-dire que par exemple. Euh, man ak yow yow mun nga nekk euh, Sénégal man ma nekk France ki nekk Amérique kee nekk Asie ñu ñëpp ñu bokk même société bi di liggéey ci produit wala ñuy liggéey ci service yoo xam ne client bi c'est transparent pour lui moom du mën a xam kan moo nekk fan ñun l'essentiel daal ñoom nañ mën su nekkee application la su nekkee service la wala produit la loo xam c'est transparent pour le client loolu mooy loolu moo loolu moo wundu cloud parce que benn benn instant lii tax euh, Microsoft wala AWS wala keneen ak keneen. Mhm. mooy quantité bi. parce que yow soo jëndee benn béewu serveur wala benn euh, n'importe quel appareil daal. waaw si si soo si benn wala ñaar su Microsoft jëndee cent wala deux cent. ma ne moom moo lay gën a mën na optimiser prix bi. si si exactement parce que capacité de négociation am moom. du doon du doon benn ak yow. non non dañuy wute waaw exactement. donc foofu la foofu la foofu la kii bi euh, intéressant hein parce que yow soo soo ko doon jaay par exemple yow sa sa sa prix moom mooy gën a cher parce que yow li ngay jëndee ñoom duñ ko jënde ok ok. comme marchand gros ak détail rek. si si si si en gros ak détail exactement si si wax nga dëgg. Mm-hmm. voilà mhm. donc léegi léegi loolu mooy permettre nag euh, kii yi nan lañ koy waxee sax euh, entreprise yi mën a mën a bouger du modèle CAPEX donc euh, capital expenditure moom mooy investissement yi ñu bouger si modèle operational expenditure donc OPEX mooy modèle d'exploitation bi nga xam ne da ngay ñëw rek jënd sa service sans pour autant jënd hardware bi nekk si ginnaaw Hmm, si ok soo jëndee soo jëndee sa service jur ba la neex mun nga ne bon par exemple imagine nga engagé benn projet développement projet bi dem ba dem ba yàqu par exemple nga bëgg a dellu ginnaaw. Hmm, ok su fekkoon jënd nga hardware. Mhm. doo mën a dellu ginnaaw parce que hardware bi peut-être mën nga ko jaayaat mais mhm. soo koy jaayatee di nga di nga perte xaalis noo def mën nga perte xaalis. exactement ça c'est vrai. Mhm. alors que su fekkee da nga da ko jënd si si si cloud donc c'est du pay as you go paiement à l'utilisation jour bi nga xamee ne yow projet bi nii instant bii nii dafa dépensé dépensé nañ ci lii ci xaalis nañ ko arrêté jour boobu nga ko arrêté jour boobu ngay bàyyi fay. exactement ok ok je donc ce qui fait que. Mhm. Euh, pour nga xam ne entrepreneurs yi wala PME yi soog a juddu. Mhm. jarul ñuy investir lu bëri. Mhm. ci ci hardware. ok jarul ñuy jënd ba par exemple pour nga defar sa infra classique en en termes de locaux il te faut am na da nga war am hyperviseur am am serveur physique am switch am euh, baie de stockage euh, potentiellement baie de sauvegarde euh, yooyu noonu yooyu yëpp aujourd'hui jarul nga koy am pour mhm. entre guillemets être up and running. ci ci sa ci sa entreprise okay. c'est-à-dire de messagerie mm -hmm. tout ce qui daal mhm. jaratul léegi ngay am euh, infrastructure hardware ok pour pour kii ko ci sa entreprise quoi ok voilà mën nga ko mun nga ko amee euh, ci AW ci ci euh, Azure donc du ma wax gum Azure sax mais mën nga ko am ci cloud bi. <laughs> <laughs> waaw nga ko am ci cloud bi Euh, sans pour mhm. temps yow nga ñëw di configurer say propre machine dugal say propre serveur parce que sax du am sécurité déjà mun nga ko def ci benn chambre xëy chambre ba lakk tu vois sa données yi naaw tu loolu problème la donc tey. exactement service yooyu yëpp tey mun nga ko am. Euh, ci cloud bi dans les nuages tu vois ba lu ñu waxee nuage nag gars yi dañu ah est-ce ci jaww ji mais c'est euh, c'est ce sont des choses virtuelles ay affaires yoo xam ne c'est virtuel la yoo xamante entreprise bi ñuy wax Microsoft mën na la ko dencal quelque part boo xamante dafay am sécurité euh, ba bër boo ko soxlaa aussi mën nga ci am accès sans pour mu nekk ci sa biir kër wala yu demee noonu quoi nekk sa biir entreprise alors je pense que donc loolu am na solo Azure bon cloud la mais ci ñu wax spécifiquement ci Azure euh, mais mais ku bëgg am beaucoup plus d'informations ci lan muy cloud ak naka lay doxee ak tout ça mën nga dem déglu euh, épisode bi ñuy defoon muy saison 4 épisode 12 euh, foofu détaillé woon nañ affaire yu bari mais alors Ibrahima lan mooy Azure bi nga xamante ni moom la ñu war a bon Azure offre commerciale bu bu Microsoft. Mhm. donc au, au début en fait Microsoft avait fait. lu euh, ñuy wax euh, plateforme as a euh, mais dañu dem ba ci ba ci biir xam ne besoin bi yu si bëri infrastructure as a service la donc machine virtuelle yu bëri la nit ñi gënoon yi tel que plateforme as a donc euh, tey euh, plusieurs services la lu ñuy wax Microsoft Online Services euh, donc muy Azure ak Microsoft 365. donc partie Azure bi moom mooy partie infra bi moom mooy plateforme boo xam ne euh, mun nga si mun nga gis euh, IT pro yi gis si développeurs yi. Mhm. gis si ñi def sécurité gis ñu gis ñu si bëri. après am nga partie Microsoft 365 boobu mooy li ñuy wax modern workplace moom mooy moom mooy outil de collaboration yi ay ay euh, ay Teams Word Excel. Euh, Outlook Power Platform donc yooyu noonu moom mooy moom mooy plus viser outil métier yi outil de collaboration yi. Mhm. vie d'entreprise bi en tant que tel. exactement si si. donc Azure nag moom ça ça se concentre euh, mhm. sur euh, sur euh, infrastructure as a service euh, plateforme as service maintenant on, on parle de IPaaS donc integration platform as service loolu yëpp loolu yëpp pour permettre derrière mooy entreprise bi moom mooy ay ay déploiement d'application yoo xam ne c'est fluide euh, et ça permet d'atteindre rapidement le time to market donc c'est ça c'est ça c'est ça l'objectif donc am na am na ñuy wax marketplace euh, bu nekk ci Azure donc ça permet aux partenaires de Microsoft de proposer du SaaS. Mm-hmm. Par exemple, euh, lors du de la dernière conférence, par exemple, Microsoft Build, il y a, il le, il par exemple euh, l'outil F5, euh, Nginx. Euh, léegi SaaS la mode SaaS mode SaaS la si biir Azure au lieu que ngay jël par exemple euh, euh, ce ce benn machine virtuelle configurer ko def des affaires yooyu noonu donc léegi sas carrément la. donc c'est de plus en plus euh, courant lu euh, ñuy wax service manager donc au lieu yow ngay impliqué wu di configurer di def ay affaire ya a un minimum de configuration mhm. mais ouais. Euh, configuration yu poussé yi affaire yooyu noonu dañuy am day am abstraction si loolu permettre la yow nga concentré wu ci sa application wala nga concentré wu sa développement su fekkee da ngay développer. ok et cetera et alors je pense que Azure euh, euh, am na solo trop parce que moo nekk proposition bi Microsoft def ci affaire euh, cloud yeeg yu demee noonu quoi mais alors bopp léegi yaa ngi yaa ngi wax ay ay ay ay ay ay ay PaaS SaaS ak yu demee noonu mais est-ce que mën nga ñu expliquer tuuti modèle de cloud yooyu noonu nga xamante ni moo am ak lan moo leen wutale maanaam IaaS PaaS SaaS lan moo leen wutale ak lan lañ lan la ñuy tekki ci boppam. bon kii bi nu mu sax en fait. so soo soo soo demee soo demee ci euh, entreprise euh, classique boo xam ne nekkul nekkul ci cloud. Mm-hmm. su ñu jëlee exemple boobu noonu. Mm-hmm. Euh, su ma jëlee sama exemple bi ma la wax tout à l'heure par exemple nga war a jënd base stockage jënd serveur affaire yooyu noonu yooyu yëpp sa propriété lay doon donc loolu yow yaa ko moom donc yow yaa ko war a yow yaa ko war a sàmm yow yaa war a def lépp lépp li ci war donc. Euh, Azure dafa nekk plateforme boo xam ne euh, cloud public la donc mun nañ ñëw si différence entre rapidement entre différence entre cloud public ak exactement si si <coughs> mhm. donc cloud cloud privé moom mooy moom mooy dafa may ay fournisseurs yoo xam ne ñoom soit dañ lay jëndal matériel wala ñoom des fois dañuy am ay partenaires yoo xam ne euh, dañ lay jox matériel nga nga mën a euh, par exemple conformer wu ak ay normes yoo xam ne ay réglementation yoo xam ne par exemple données bi waru jóge France données bi waru juge Europe affaire yooyu noonu y a un certain nombre de réglementations yoo xam ne mhm. cloud public bi mënu mhm. ko mënu koo dékku parce que dafa am ay problème de confidentialité des données problème de résidence des données donc yoo xam ne dafa strict ba nga xam ne cloud public mënu koo mënu koo satisfaire donc loolu mooy tax loolu mooy tax nit ñi di jënd seen hardware bopp donc ça passe par un fournisseur fournisseur boobu moom mooy opérer hardware hardware boobu noonu comme si comme si en fait cloud bi sa kër lay ñëw euh, sa sa entreprise lay ñëw. ok ok mais tout est privé. donc il y a pas de. il y a mhm. pas de il y a pas d'interconnexion publique. ok ok donc ñeneen mënuñoo am accès ci sa kii boobu noonu tey yow permettre loo ko quoi. exact exactement léegi par exemple il ya a il y aujourd'hui euh, mën nga def Azure. Mhm. Euh, dans le cloud public mais mu nga def Azure en privé. parce que il y a ce qu'on appelle euh, Azure Stack. Azure Stack ok. Azure Stack moom moo lay en fait nga jël sa nga jël sa hardware mën na nekk hyper convergé léegi ngay ngay ngay euh, ngay utiliser Azure dans ton centre de données comme si comme si yow yaa ngi woon ci cloud public. ok ok ok. donc loolu mooy un peu différence bi entre public et et, et privé bi quoi ok. que privé bi. Mhm. donc euh, yow yaa koy yow yaa koy gérer à travers ton fournisseur. yow yaay responsable euh, sécurité bi yaay responsable de quasiment euh, tout de bout donc une responsabilité partagée entre yow client bi. ak sa furnisseur de cloud privé wala sa wala sa gestionnaire entre guillemets de cloud public. bu ñu ñëwee si public bi. Mhm. public bi mhm. bon comme son nom l'indique c'est public. ouais c'est public. <laughs> donc donc c'est interconnecté. Mhm. c'est interconnecté de euh, défaut à internet. donc l'idée moom mooy moom mooy nga war a jot sa sa email doo jaar ci VPN doo jaar fenn da ngay dem directement sur internet am sa am am sa sa email. euh, accéder à des, à des services de fichiers euh, comme SharePoint, euh, OneDrive, euh, stockage de fichiers, etc., sans passer par, par, par des réseaux privés ou des réseaux, réseaux Internet. OK, OK, je vois. Mmh. Donc, euh, à, partir de, à partir de là, amenons l'union responsabilité partagée, comme je disais tout à l'heure. Moi, ben, ben, ben, ben instant, euh, sooy def lu ñuy wax infrastructure as a service infrastructure bi euh, lépp loo xam ne hardware la cloud provider bi wala fournisseur bi ici donc Azure Microsoft moom moo koy gérer maanaam lépp luy switch lépp plus stockage euh, la lépp luy interconnexion réseau physique lépp loo xam ne euh, avant système d'exploitation bi la. donc système d'exploitation mun na nekk Windows mun na nekk Linux léegi bu ñëwee si Windows si si système d'exploitation bi foofu ngay jëlee relais bi donc système d'exploitation bi su fekkee dañ ko war a patcher yaa koy patcher su fekkee dañ ko war a sécuriser yaa koy sécuriser su fekkee dañ si war a def hardening yaa si def hardening su fekkee dañ ko war a c'est-à-dire dootul nekk ci responsabilité wu Azure quoi e-, exactement ok à partir de ce moment la su fekkee da nga nekk ci euh, infrastructure as a service. yow yaay yow yaay gérer loolu yëpp yow yaay gérer yow OS bi donc euh, sécurité OS bi su fekkee da nga volume euh, de données yow yaay chiffrer volume de données yooyu noonu. donc di jëm foofu ba si say ba si données yooyu yooyu yëpp yow yaa koy yow yaa koy yow soo ñëwee si plateforme as service. Mm-hmm. yow dootoo am dootoo am visibilité sur OS bi Microsoft moom mooy moom mooy gérer li ma doon wax sànq patch bi moom mooy lay moom mooy garantir que yow sa sa sa OS bi nekk si si ginnaaw OS bi c'est c'est euh, c'est patché c'est sécurisé c'est sauvegardé et cetera et cetera donc pour te permettre yow nga orienté wu directement si sa si sa développement donc ci biir plateforme plateforme as a service boobu noonu y des des des variantes comme par exemple function as a service nga xam ne par exemple ñi xam AWS xam nañ luy lambda function donc donc euh, équivalent bi mooy Azure function donc function app euh, c'est un peu du serverless serverless la okay. sax. ok ça veut pas dire que y pas de serveur derrière. Mhm. c'est juste que yow yow doo see ok si si te yow nekkul yow yaa koy gérer. ñoom ñoo koy rek ok waaw voilà ñoom dañ lay gérer dañ lay gérer OS beeg tout yow nga gérer sa métier euh, complètement quoi. voilà ok yow am nga possibilité. Mhm. par exemple su fekkee da ngay utiliser ay runtime wala ay langage ay ay de programmation mun nga ne par exemple bon runtime bii laay jël damay jël Node.js damay jël euh, et cetera et cetera. donc loolu yow mën nga jël yooyu euh, kii quoi mais li si ginnaaw ñoom ñoo koy ñoom ñoo koy gérer mais maintenant soo ñëwee si software as a service mm-hmm. yow gérer woo infra mm-hmm. gérer woo mm-hmm. yow da ngay consommer rek yow li ngay def moom mooy configure configurer yow fonctionnalités yi nga xam ne elles sont déjà existantes parce que yow ah tu n'es plus au niveau du développement muno laal fonctionnement fonctionnement natif ou application bi bon après il y a il y des applications yoo xam ne ça permet de faire du custom dev mais euh, pour la plupart du temps software as a service par exemple euh, mun nañ jël Exchange Online mun nañ jël euh, OneDrive mun nañ jël n'importe quel autour de outil de de collaboration. Mm la plupart du temps c'est du software as a service. donc ça, ça permet. Mhm. ça te permet derrière. Mhm. yow ngay consommer. Mhm. service yi wala wala wala fonctionnalité yi nga xam ne. Mhm. moom la moom la la. Euh, cloud provider bi di di propose ok c'est-à-dire boobaa dangay yow mun a consommer rek mais doo am benn ndogal ci ne application bi di doxee wala nga mën ko changer wala yu demee noonu n'est-ce pas. exactement nga mun nga am ay ay nan lañ koy waxee sax mun nga am ay ay changement yoo xam ne euh, mun nga ko ci def mais loolu day fekk. Euh, kii defar euh, application bi euh, kii ko permettre ko wala wala kii ko nu mu sax anticiper ko par exemple soo jëlee Microsoft Teams par exemple y a Teams développeur par exemple ñoo xam ne mën nañ yokk ay application def ay custom application donc soo demee tamit si yenn service Azure yi ça te permet de faire aussi du custom dev. et cetera et cetera. Hmm. ok mais ça c'est hyper intéressant. ah man loolu yëpp xaw ma ko woon ci affaire euh, euh, Azure bi ah franchement c'est hyper intéressant alors mais mais mais mais euh, Ibrahima est-ce que mën nga ñuy ñëwal ci par exemple ci benn question bu am solo c'est-à-dire yan fonctionnalité wala yan service la ñu gën a ràññee tey ci Microsoft Azure euh, nga xamante ni entreprise yi ñu koy jëfandikoo saa su nekk mais aussi lan moo ko wutalee ak. AWS bi nga xamante ni moom tamit comme Azure la day proposer ay service cloud computing bon fonctionnalité bon service yi gën a yi gën a fës euh, sûrement sûrement kii la euh, infrastructure as a service ak plateforme as a service euh, infrastructure parce que ñëpp amuñu même allure développement parce que y a y a ñuy wax stratégie cloud first par exemple su fekkee da nga am ay am ay ay application au lieu nga leen di développer au niveau local tu tu fais du cloud natif donc defe naa ñëpp dégg nañ la mooy Kubernetes. affaire yooyu noonu si si mhm. donc donc euh, ñu si bëri euh, ñu ngi jéem a def surtout grande entreprise yi ñu ngi jéem a def lu ñuy wax euh, stratégie cloud first. maintenant soo fekkee jël da nga ko jël dans la globalité loolu mooy mooy fay ay pour ñu lay defale ay application donc nekkul nécessairement par exemple nga am sa nga am sa benn machine virtuelle bu nekk dans dans sur on-prem nga bëgg ko migrer vers Azure euh, nga changer complètement de d'approche euh, kii euh, ko euh, cha changer ko defar benn benn application parce que loolu ça implique des coûts ñu euh, ngi xaw na xaw na takku. donc nekkul ñëpp ñëpp ñoo koy def. donc loolu moo tax euh, infrastructure service machine virtuelle yi xaw am tuuti aura aussi parce que moom mooy nekk tampon bi entre évolution vers le cloud ak euh, bi nga xam ne yow yaa ngi yaa ngi un peu cloud native wala yaa ngi yaa ngi euh, euh cloud first. ok ok ok. Donc, bon après AWS man. Mm -hmm. Euh, defe naa yaakaar naa defe ay trois ans ci ginnaaw deux ans enfin quatre ans sax ci ginnaaw euh, laaloon naa ko mais y a pas y a pas de y a de grosse différence y a de grosse différence entre entre entre les deux en fait ça dépend juste si ce si ce si ce besoin ak si ce feeling aussi parce que li tax li tax nit ñi di dem ci Azure Azure aussi continuité le service yi Microsoft doon doon doon joxe on-prem parce que ñëpp xam nañ la mooy Windows Server Active Directory euh, ñëpp xam nañ ñëpp euh, xam nañ la mooy DHCP et cetera et cetera donc techno yooyu noonu infrastructure Windows yi Microsoft moo ko doon moo ko doon joxe ak technologie euh, virtualisation yi comme Hyper-V et cetera donc yooyu yëpp Microsoft moo ko doon moo ko doon joxe. Mm-hmm. léegi Microsoft su ñëwee ne la par exemple lii mooy évolution bi lii mooy futur bi. donc ñu si bëri du ñu am beaucoup de mal à à dem dem ci Azure parce que ils connaissent déjà euh, euh, kii bi fournisseur bi donc y a pas beaucoup de y de mal à y aller maintenant ça pas dire que euh, cloud provider bi man yooyu noonu débat yooyu noonu mu si dugg parce que. Mhm, mhm. pour nga xam dëgg. Mhm. pour nga xam dëgg kan moo gën kan il faut nga maîtriser cloud yëpp. exact te loolu foog nga ñaar yëpp quoi. waa voilà te hmm. loolu loolu man du sama cas. Hmm. bon ñi ñi nga xam ne ils ont la chance def ñaari wala wala ñetti wala wala plusieurs peut-être que sur un projet ils ont dû toucher quelques services euh, parce que c'est c'est c'est des centaines de services donc c'est impossible nga mën nga mën a nga mën a liggéey ci service yëpp ba pare am objectif objectivité bu toll ni nga ne service bi liggéey naa ci six mois wala un an. Euh, te loolu sax man pour man doyul pour xam. ndax service bi moo gën moo gën wala wala wala gënul. mais li ma li ma bëgg nit ñi jàpp daal mooy euh, ça dépend en fait ci besoin client bi ak sa ça dépend si moom position bu mu am position de confiance bu mu am par rapport ak fournisseur bi parce que am na ay clients yoo xam ne ñoom ñoom par exemple peut-être qu'ils sont pas satisfaits ci ni Hyper-V donc. mun nañ ne bon man Microsoft doyuma donc man du ma dem Azure AWS laay dem. ok ok ok. donc am na ñoo xam ne. Mhm. mun nañ ne par exemple bon AWS man xaw ma ko. Mhm. musuma consommer sen service. Mhm. j'ai toujours fait du Microsoft donc je vais de l'Azure. ok ok donc ça dépend client bi franchement ça dépend client bi ak kóoluteem. ak euh, voilà lan la bëgg exactement tu vois ak lim gën a tàmm lim gën a miin tu vois. mais euh, voilà pour xam dëgg dëgg nag lan mooy avantage lii ak inconvénients yi am fii c'est-à-dire ñoom ñaar ñëpp baax nañ quoi mais euh, peut-être ça dépend ci koy utiliser rek utiliser nga mën a juger dëgg dëgg dëgg foog nekk koo xamante ne yàgg nga utiliser AWS yàgg nga utiliser Microsoft nga mën a gis ne bii fii la gën a baaxee bi mooy point fort am bii bii mooy point faible parce que je pense que. système yëpp am ay points forts ak ay points c'est ça. c'est mhm. ça am na ay am na ay ay ay points yoo xam ne point de de point similaire la mais il faut nga liggéey ci dëgg euh, si certains services pour dire que par exemple si on prend service firewalling par exemple euh, euh, tel tel tel tel tel euh, service mën na def lii mën na def lii mën na def lii euh, mais soo demee Azure mënoo ko def affaire yooyu te la plupart du temps sooy sooy xool comparer. Euh, différences yi c'est des différences mineures c'est-à-dire cœur de métier bi cœur de métier bi ñaari service yëpp a koy def léegi peut-être da ngay am fonctionnalité supplémentaire c'est comme débat débat Fortinet euh, Checkpoint Palo Alto. waaw ñoom ñëpp ay ay fournisseurs de firewall lañ. ñoom ñëpp ils font du de mm. l'inspection affaire yooyu noonu. Mmh. C'est vraiment au niveau du feeling, au niveau du besoin client, au mm-hmm. niveau aussi de la maîtrise mm-hmm. d'exploitation parce que mm-hmm. parce que client yi tamit du ñu dem si loo xam ne. loo xam ne seen équipe maîtriser wu ko. surtout. donc donc yooyu noonu yooyu noonu c'est des facteurs yoo xam ne mën na tax. mën na tax. Euh, client bi dem ci cloud bi wala ci cloud bi ça je pense que ci li nga wax noonu sax ci la ñu ci la ñuy euh, comme ni nga ci la ñu boroxloo dugg ci benn question bi alors comme ni ma ko waxee sànq mhm. ci Covid 19 bi euh, je pense que ni ñu ni ñu ni ni ni ni ni ni cloud bi dimbalee liggéeykat yi gis nañ ko bu baax a baax surtout développeur yi nga xamante ni da ngay toog sa kër liggéey normalement mais li ma gën a amal solo nag en ci ci loolu noonu maanaam question bi bëgg a xam mooy. projet yi nga xamante ni dañu si liggéey des fois euh, day laaj ay mbir yu bari bari bari ay outils maanaam ay jumtukaay day laaj ay ressources pour que euh, nga mun a def ay innovation ci ni mu gën a gaawee mu gaaw sotti sotti yaa ngi koy wax léegi muy time to market et tout ça alors naka la Azure euh, di indee ay solution pour développeurs yi nga xamante ni ñu ngi nekk ci seen projet yi pour nga xamante ni dañu mën a gaaw def seen liggéey normalement pour mun a innover rapidement voilà seen liggéey mu gën a gaaw quoi. bon développeur développeur bi moom daana euh, entre guillemets ils sont les plus gâtés. <laughs> Madou. <laughs> <laughs> parce que parce que parce que parce parce que tout est fait que pour que derrière ñoom ñu mën a concentrer wu si développement rek rek rek pas pas pas pas derrière xam lan la OS bi di wundoo lan lan la ñuy configurer OS bi et cetera et cetera donc principe même. Kubernetes par exemple Azure Kubernetes Service par exemple lu ñu wax control plane bi control plane bi Microsoft moo koy gérer yow yow data plane bi rek ngay ngay gérer donc y une partie. Mhm. partie boo xam ne yow lan mooy control plane ak data plane c'est c'est lan mooy lan mooy loolu donc control plane bi moom mooy mooy entre guillemets ñu wax master yi fi ñu nekk. donc moom mooy entre guillemets cerveau bi euh, ko xam Kubernetes donc xam API API serveur bi etcd bi et cetera et donc li nga xam ne moom mooy moom mooy réacteur bi mooy cerveau bi maintenant worker worker node yi moom mooy héberger moom mooy héberger yi affaire yi noonu euh, foofu yow yaa koy yow yaa koy yow yow yaa koy gérer yow yaay yow yaay dimensionner par exemple sa taayu nœud Euh, te nœud yi euh, derrière ay machine virtuelle la lu ñuy wax machine virtual machine scale set. Mm-hmm. ok set pour moom mooy moom mooy loo xam ne euh, ça te permet d'avoir une scalabilité au lieu nga am benn VM di ci yokk benn beneen VM yokk ci beneen VM da ngay da ngay am même VM bi qui est capable de se dupliquer plusieurs fois. donc moom mooy tax nga mën a am scalabilité en fonction si sa si sa trafic par exemple su fekkee derrière c'est une application web en fonction du trafic mun nga mun nga yokk di yokk di yokk di yokk pour permettre découpe trafic bi mhm. mais mun nga tamit faire du downscale mhm. euh, wàcc wàcc wàcc wàcc ba zéro ba nga xam ne instant bi ni yow dootoo fay ok je vois donc loolu ce ce sont des yoo xam ne Euh, ça permet euh, derrière aux, aux, plus ou moins d'avoir euh, une prise en main des, des outils, pas, pas de manière... Euh, nan lañ koy waxee sax euh, du du doon jafe-jafe-jafe daal. ok du compliqué ça c'est sûr. <laughs> Mhm. donc plateforme as a service bi. yu mhm. yu si bëri euh, développeur bi moom mooy tax moom mooy tax ñu koy kii par exemple tout à l'heure on parlait de function app par exemple donc serverless bi. Euh, yow yow en tant que développeur yow sa yoon nekkul ci OS bi est-ce que dañ koy patcher est-ce que dañ koy sauvegarder yow ñool <laughs> waaw ñool ñool plugger sa runtime rek commencé commencer développer donc ya y a aussi euh, de des euh, des plein de nanañ lañ koy waxee sax entre entre guillemets guidelines yoo xam ne ñoom moo permettre aujourd'hui nga nga mën a euh, donc par exemple tu as Azure DevOps par mhm. exemple. waa taa taa. foofu laa bëggoon ñëw sax Azure DevOps boobu noonu parce que euh, gis naa ñuy wax Azure DevOps euh, te DevOps temps yi dafa xew quoi temps yi dafa xew gars yi ñu ciy wax et yàgg na xew sax mais bon <laughs> voilà day <laughs> gis naa ay mythes yu bari gars yi di ciy wax et tout ça mais ma gis ne aussi asur am na Azure DevOps alors c'est quoi Azure DevOps lan mooy Azure DevOps ak naka lay dimbalee aussi moom tamit développeurs yi ak lan lay jouer ci biir DevOps aussi moom tamit quoi. Bon, après, il y a, y a. Bon, Azure DevOps, c'est euh, ancien euh, euh, Visual Studio Team Services, une évolution de Visual Studio Team Services. Euh, maintenant, il a plusieurs fonctionnalités, des fonctionnalités de gestion de projet comme euh, Azure Board, ah, okay. comme Azure Repo, mm -hmm. gestion des packages avec artefacts. Euh, il y a aussi euh, il y a aussi les test plans pour le pour le pour le testing euh, ak d'autres fonctionnalités que j'ai que j'ai oubliées parce que man man général généralement je m'arrête à Azure Repo test plan euh, je fais pas de l'artefact parce que du ma du ma du ma du ma du ma développeur. Il euh, y a y a Board pour les projets, il y a Repo mm -hmm. pour le source control. Mm -hmm. euh, donc après il y a il y a GitHub, GitHub Actions. donc euh, GitHub pour euh, pour mu nga am version publique bi mu nga am version euh, entreprise bi donc Azure Dev Azure c'est un peu du software as a service derrière parce que c'est hosté par par Microsoft. Euh, donc, ça te permet d'être open learning directement sans avoir à construire l'infra. Même si derrière, tu peux, tu peux euh, avoir la version self-hosted Server, donc boobu noonu boobu noonu nekkul nekkul yaa koy osé fu la neex euh, mu nga ko osé même dans dans Azure si boppam euh, par contre yow yaa koy configurer yow yaa gérer toutes les fonctionnalités. Euh, quoi. mais en somme. Mhm. Euh, yu si yu si yu service yu si bëri c'est c'est à destination des développeurs par exemple tu prends. euh, les dernières innovations, par exemple Azure Container Apps. Euh, donc tout, tout est dans la partie containerisation, orchestration. Donc tout ça pour permettre pour permettre aux, de, de faire euh, euh, le développement soit cloud native, soit euh, du développement avec euh, des chaînes CI/CD. donc il y a aussi des outils pour faire du pour faire du DevSecOps, donc euh, dans les chaînes de développement euh, de la sécurité, parce que l'eau, c'est super important. Donc, ouais, mhm. dans, tous les, mm les, toutes les étapes du développement en sécurité, il faut être présent. Mhm. doo bàyyi ba pare développer rek nga ne nga ne da ngay kii da ngay commencer da ngay commencer donc il y a aussi intégration yoo xam ne euh, ak ay là. Par exemple, si tu prends Azure DevOps, il y a euh, ce qu'on appelle Azure Key Vault. Key Vault, au moment où elle lay permettre d'appeler un mhm. service Key Vault, bon, on gérer ses clés, gérer okay. ses tokens, okay. gérer, gérer ses mots de passe. Mm -hmm. sécurité, quoi. waaw voilà. dencal ma ko mm. dencal ma ko dinañ si ñëw léegi ko <laughs> waaw voilà dencal ma ko. mënoon ñëw def appel bu sécurisé. fekkee bëgguma appel public mun naa def du self hosted donc par exemple au lieu agent bi nekk euh, Microsoft hosted agent mun na nekk self hosted agent c'est-à-dire yow yaa jël sa machine virtuelle hosté ko job yi yi yi ñu war a def si si chaîne yëpp. Mhm. Euh, sa sa sa machine bi moom moo ko moom moo koy sa virtual machine bi. Mhm. moo koy def mun na nekk virtual machine scale set mun na nekk. Mhm. machine virtuelle tu peux mettre du Docker in Docker. ok euh, et cetera et partie sécurité boobu sax dinañ ci dellusiwaat léegi parce que am na ay questions yoo ci bëgg a laaj euh, euh, mais mais mais mais demaat ci beneen euh, affaire boo xamante ni je pense que am na solo trop c'est-à-dire comme man dama sopp moom xool naa internet xool Azure et tout ça mais gis naa ne aussi c'est-à-dire am na ci xarala yu bees yi tey fu ñu toll foo xamante ni mënuñ cee wax sans pourtant ñu wax intelligence artificielle alors Microsoft nag aussi indi na ci mëninam alors lan mooy Microsoft Azure AI parce que gis naa Microsoft Azure AI ah ak lan la intelligence artificielle mais aussi ci wàllum li ñuy wax ay machine learning ak yu demee noonu. bon après euh, nu mu di sax euh, intelligence artificielle bi sous kii la rek euh, nan lañ koy waxee sax sous service la rek dans ensemble de de de de services dans dans Azure donc effectivement mënuñu woon proposer. euh, plusieurs services sans proposer de l'intelligence artificielle et du machine learning. Surtout, par exemple, euh, dans ce qu'on appelle la data platform. Mm -hmm. Donc, il y a, y, a, y a, tout un tas, euh, en dehors des, des activités, euh, non, ça, en dehors des activités infra, dev, pure, etc. Donc, il y a aussi le, le, big data. Donc, il y a le traitement, des, des données. Donc, euh, aujourd'hui, Euh, par exemple si tu fais euh, du euh, des systèmes ni ñu koy waxee sax ETL e extract transform load tu as des des des trucs comme Data Factory voilà voilà Databricks qui est qui est embarqué dans Azure donc lu ñuy wax Azure Databricks et dans Databricks donc il y a il y a il y a il y a moyen aussi de, de, faire de la transformation grâce à des algorithmes, à, grâce à l'intelligence artificielle, grâce à du machine learning. Donc, il y a, il y a, il y a moyen, en fait, d'avoir des, euh, des workers derrière, donc des machines virtuelles, qui vont faire du compute pour toi. Donc, sans que tu aies à les, à les, euh, à les créer ou à les hoster. Ok, je vois. Donc, c'est comme des environnements de travail. Mm -hmm. D'ailleurs, ça s'appelle des espaces de travail. Mm -hmm. Espace de travail, bi moom moo lay a permettre, par exemple, euh, nga nga traiter sa donnée avec le le le le le compute qu'il faut pour pouvoir analyser, pour pouvoir traiter les données, pour pouvoir entraîner tes algorithmes, mhm. etc., Donc, tout ça, euh, donc tu, as des services comme euh, Azure HD Insight, tu as, as, machine learning, tu as, as, plein d'autres outils, tu as Synapse Analytics, avec des, genre, genre des de studio, ça permet par exemple, par exemple dans Databricks, tu as la collaboration entre les data scientists et les data engineers, par exemple, donc qui, qui permettent en fait de traiter la donnée de bout en bout pour pouvoir avoir euh, au début une source qui est non épurée, non traitée, mm -hmm. et au final avoir des dashboards avec Power BI, euh, avec, ouais, si, si, si, avec de la visualisation, etc. etc. Okay. Donc d'un autre côté, en dehors de la data, tu as d'autres outils mm -hmm. euh, mhm. pour les devs, mm -hmm. donc euh, New York Cognitive Services. Donc Cogni des... Cognitive Services. Okay. Ouais, cognitive services. Mm -hmm. Donc, moi, permet, par exemple, de faire de l'OCR, euh, par exemple, euh, mhm. euh, euh, détecter des images. Donc, ah, tout ça, mon intégrer, mm intégrer si sa application, faire de l'IoT. Il mm a, aussi du natural language processing. Mhm. tu as, de, services, en tout cas, qui, sont liés Euh, plus ou moins à, à, à, l'intelligence artificielle, au machine learning, sans que ça soit mhm. vraiment lié, parce que intelligence artificielle, Bob, derrière, moi, mm -hmm. aussi permettre mm -hmm. de gérer sa sécurité, parce mhm. que sécurité manuellement, mhm. bon, c'est compliqué. Ouais, il faut quelque sûr. part, <laughs> <laughs> il faut quelque part ah l'aide ouais. de l'intelligence artificielle pour processer, pour pouvoir répondre, aux menaces. Ah, ah Et c'est ça la tendance certaine. Hein, je pense, euh, pour nous utiliser intelligence artificielle, sécurité ba nga xamante ni nekkatul ay nit ñooy taxaw wala def ay say configuration pour détecter mais mën nañ am yenn modèle yenn comportement yoo xamante ni mën nañ ko détecter ci réseau bi de telle sorte que bu ñu ko gisee rek ñu xam ne lii telle façon euh, maanaam telle façon attaque la wala ñu mun ko prévenir y a de choses yoo xamante ni je pense que intelligence artificielle mën na ko apporter ci euh, wàllum sécurité bi et je pense que sax ci sécurité boobu noonu lay des euh, laaj la aussi parce que procès woon nga ci tuuti doon wax ci sécurité bi alors c'est-à-dire euh, lan la Azure indi aussi pour gérer par exemple identité yi contrôle ñiy dugg ñiy génn ci système bi ah, sécurité réseau bi protéger données yi maanaam daal ci gàttal euh, naka la ñuy def avec Azure ba mun a am visibilité bu mag euh, ci lépp li nga xam ne mooy sécurité ba mun a prévenir yenn attaques yi nii. bon sécurité bi c'est un peu c'est un peu complexe. Euh, mm-hmm. c'est un peu complexe dans le sens où mm-hmm. il faut vraiment nga am. une visibilité du fonctionnement. Okay. En, en, selon yow fan nga nekk. Mhm. donc toujours est-ce que yaa ngi si yaas est-ce que yaa ngi si paas est-ce que yaa ngi si sas la mooy sa responsabilité fan nga war a fan nga fan nga war a gérer fan nga warul gérer fan nga war a dugal sa politique et cetera généralement le plus simple mooy nga prévoir yëpp nga prévoir. nan ngay comporté woo su fekkee da nga am yas nan ngay comporté woo soo amee bas nan ngay comporté woo euh, soo euh, soo amee sas parce que derrière yow munoo jékki-jékki rek ne bon am naa faille de sécurité donc Microsoft moo ma war a moo ko war a gérer donc loolu loolu euh, Microsoft du la mën accompagner si loolu à moins que nga fay ko mais ça ça fait pas partie du support parce que yow ba ngay jël service boobu noonu tu es censé être au courant Euh, des conditions de vente. yow su fekkee da ngay jël jël yas. tu mhm. souscris à abonnement. Mhm. Euh, jël jël yas yow xam nga ne. Mhm. derrière yow OS bi yow yaa ko war a gérer. données yi yaa et cetera donc maintenant ça n'empêche pas que. Euh, am na ay outils yu bëri. même si derrière il faut prendre des licences wala payer des versions premium tout ça c'est discutable ça n'empêche pas que. lépp li la war en termes de sécurité lu nga xam lu xam ne yow yaa ko war a def ya des outils pour donc par exemple tout à l'heure yaa ngi wax utilisateurs yi ñu ngi nu ñuy duggee ni ñuy génnee donc y a a des modèles euh, yoo xam ne donc euh, euh, gestion des identités et des et des accès donc gestion des identités et des accès pour les utilisateurs simples euh, ñoo xam ne amuñu amuñu ay privilèges ak ay utilisateurs yoo xam ne par exemple ça peut être des admins wala des des ingénieurs yoo xam ne am nañ un peu plus de privilèges donc il y a des modules comme par exemple privilege identity management donc pour gérer euh, utilisateurs yoo xam ne Euh, ñu ngi am nañ ay ay privilèges yu élevés. par exemple quand tu es global admin par exemple. Mm tu as quasiment le le du sax quasiment tu as le droit de tout faire. <laughs> exactement si si. donc donc par exemple euh, privilège identity management moom moo lay permettre par exemple euh, yow xam nañ ne danga nga war a nekk global admin pour def tâche bi tâche bi tâche bi mun nañ ko mun nañ def timer wala mun nañ mun nañ ko euh, limité dans le temps par exemple mu nga nekk global admin pendant une heure wala mu nga nekk global admin hmm. pendant deux heures pendant huit heures et automatiquement une fois que que que euh, euh, bi kii ko bon mm-hmm. que tu aies terminé ou pas d'ailleurs parce que suñ ko limité mm-hmm. en, en fonction de de limitation bi mm-hmm. euh, kii bi accès bi day dañ donc on a accès. aussi ça mm -hmm. on a aussi avec avec ce qu'on appelle le time euh, access par exemple tu as besoin d'accéder à une machine virtuelle donc tu définis yan port nga war a ubbi Euh, ñaata temps nga ko war donc une fois nga une fois nga nga kii ko nga ko nga def sa sa donc ça part donc une fois le temps est fini règle yi règle yi day automatiquement donc on revient à l'état initial. ça c'est mhm. hmm, On parlait, aussi euh, de de d'intelligence artificielle. Donc l'intelligence artificielle au niveau réseau par exemple, il y a du ce qu'on appelle euh, du adaptative network hardening maanaam day xool comportement réseau bi xool comportement port yi xool tra en fonction du trafic da lay naan tëjal tëjal port bi tëjal port bi tëjal port bi parce que port bi ça ça s'utilise pas souvent donc en en en en fonction donc de lu muy analyser mën na la jox ay suggestions. Mhm. par rapport ak ni ngay gérer. Mhm. Euh, ce réseau. machallah ah oui ça c'est ça c'est hyper cool et je pense que donc bon wàllu sécurité bi am nañ ci avancé yu mag yoo xamante ni euh, je pense euh, parce que sécurité parce que bu fi sa données yi fi ngay denc sa application yi sa hmm. laaj na bu baax a baax voilà parce que voilà euh, tey saay saay si dañoo bëri mën nañ dugg ci système yi yàqu ko aussi seen fournisseur et tout ça c'est bien aussi ngeen ngeen xool bu baax sécurité bi comme ni ko euh, Ibrahima waxee léegi ça dépend nag ci offre bi nga xamante ni moom ngay jël moo xam mu nekk yaas moo xam mu nekk paas wala sas donc sa responsabilité yi aussi foog nga xam ko foog nga euh, bàyyi ci xel bu baax a baax xam lan nga mën a def lan nga mënta def fan la sa responsabilité yam fan la responsabilité fournisseur bi yem moo xam mu nekk AWS wala mu nekk euh, Azure tu foog nga xam loolu yëpp bu baax a baax balaa nga ci balaa nga ci balaa nga ci balaa nga ciy dem je pense. ba pare ba pare maîtriser maîtriser aussi service yi. parce que service service bi soo xamul. Mhm. nu muy nu muy nu muy fonctionner. Mhm. doo ko mën a sécuriser. parce que il faut nga xam fonctionnalité yi muy utiliser yëpp yan faille la mën a bàyyi euh, donc faille yooyu noonu fo nga kii ko maintenant nag euh, li ma bëggoon yokk mooy. Euh, Euh, nekkul nekkul euh, parce que da nekk Azure wala parce que da nga nekk AWS def la war yëpp que doo am attaque. Mm-hmm. dans tous les cas tu seras attaqué dans tous les cas. su mm-hmm. ñu soo am day am brèche. donc la preuve. Mm-hmm. si tu si si soo xoolee soo xoolee euh, dernière vulnérabilité yi am yëpp Microsoft est concerné AWS est concerné Google Cloud Platform est concerné tout le monde est concerné donc ñooñu li ñuy am ay ay équipe de réponse am ay euh, analyse comportementale intelligence artificielle tout ce que tu veux <laughs> ils ont ils ont ils ont quand même euh, des des des attaques et il y a quand même des brèches qui sont qui sont qui sont, qui sont sorties donc lii si ëpp solo mooy nekkul damay def sécurité rek pour def sécurité mais damay def sécurité jël sama matuwaay mais aussi bu attaquant bi xasee dugg nan laay mën a répondre loolu loolu loolu tamit c'est super important parce que sa capacité de réponse su baaxul ak sa capacité de détection su baaxul su baaxul du dem doo doo dem waay waay ça c'est vrai ça c'est vrai mos naa ko wax sax ci benn euh, émission bu ñu mosoon na invité yàgg na trop ma ne leen mu ngi mel ni tey euh, ki nga xamante ni dafa yor këram yor buntam tëj ko ak caabeem moo xam mhm. mu def caabi moo xam mu def xomb lu munti def wala sax mu def euh, weñ yooyu ñuy def traverse noonu noo munti def gars boo booytu mun na am lu ñu ko dajjee bu dugg ci biir alors yow nag su blende sax blende sax mën nañ ko daj <laughs> maa la wax loolu blende sax gars yi mën nañ ko daj fi mu toll nii ñëw xotti lépp dem seen yoon mais yow su fekkee ne nag yow am nga intelligence mun nga ne ok d'accord dinaa def sama sécurité bu mag dinaa def blende dinaa def lépp mais en plus de ça dinaa def benn caméra ci biir nga xamante ni ku dugg defal lu la neex mais dinaa xam ne dugg nga tu vois après nag mun naa xam nu wala nu ma lay def ba jeex la ci dëkk bi wala wër la wala genre de mel noonu tu vois mais dinaa xam ne dugg nga dina ma informer ne que ne telle personne dugg na wala nga def alarme ci biir genre de mel noonu alors donc comme li nga wax la rek sécurité prévention la mais aussi euh, xam kan moo dugg xam kañ la dugg. maanaam nga historique boobu tamit am na ci solo pour que nga mun a euh, voilà nga mun a répondre directement tamit balaa yàq-yàqu bi di ëpp mais aussi même bu fekkee yàqu-yàqu bi am na sax nga mun a xam kan moo ko def ak fan la ko defee ak lan la jaar ba def ko quoi loolu aussi am na solo je pense aussi trop voilà alors je pense que Ibrahima temps bi nag fi mu toll nii xooj nañu bu baax a baax ñu ngi waaj a terminer mais mënumaa dem sans pour Euh, ma laaj la exactement parce que tey xam naa ne ñi ñuy déglu yëpp tey euh, am nañu euh, moo xam mu nekk particulier yi moo xam mu nekk étudiants yi entreprise yi ñëpp ñëpp ñu ngi déglu bëgg nañ xam tey par exemple étudiants yi naka lañ war a mun a def tey jii ba am ay xam-xam ba mun a maîtriser AWS est-ce que am na ay formation wala am na ay certification yoo xamante ni mun nañ ko def pour mën a maîtriser outil boobu nu muy doxee bon mais mais euh, bon formation yi euh, y ñaar ñaaram donc y a am na ay formation yoo xam ne c'est c'est c'est gratuit honnêtement euh, soo jëlee Microsoft Learn lépp a ngi lépp ngi ci biir bon après tu vas prendre du temps par exemple pour euh, pour euh, def module yëpp affaire yi noonu mais yooyu yëpp yooyu yëpp da jëriñ parce que dans tous les cas su fekkee da nga dem entreprise mu nga nekk administrateur wala ingénieur wala architecte lépp ci besoin client yi lay wékku donc client bi moom moo leen naan man dama bëgg lii dama bëgg laa et cetera et cetera donc yow munoo munoo munoo basé wu si sa bopp rek pour ne lii mooy solution bi il faut dans tous les cas culti cultiver cette euh, nan lañ koy waxee sax euh, cette manière de de toujours chercher l'information donc li ñuy wax entre guillemets continuous learning donc chaque jour chaque jour tu apprends de plus en plus chaque jour tu apprends de plus en plus okay. donc il faut nga développer déjà état d'esprit boobu loo xam ne xam ne nekkul da ngay lire benn affaire rek ça y est nekk nga savant dootoo jarat jaratul jaratul ngay jàng donc même même soo nekkee si yenn niveau yi sax da ngay continuer da ngay continuer di jàng parce que ouais, ça nit ñi dañu lay bëgg a laaj. Mhm. parce que en tant que en tant que sachant entre guillemets. Mhm. donc nit ñi dañuy bëgg la laaj. Mhm. te yow pour nga mën a répondre loo xam ne est cohérent. il faut nga xam. faut nga xam te pour nga xam faut nga jàng. exactement surtout donc loolu mooy loolu mooy première étape bi deuxième deuxième étape bi moom mooy euh, autodiscipline bi ak organisation bi autodiscipline bi organisation bi bon métti na métti na euh, surtout soo nekkee xale métti na mais. Euh, soo xamee li nga bëgg rek di nga di nga mën a di nga mën a avancer li tax may wax loolu mooy euh, par exemple yow tu as vingt quatre heures tu as plusieurs euh, heures dans la journée donc essayer de mettre par exemple je sais pas une heure deux heures euh, yoo xam ne da ngay concentré wu ne man module lii laay suivre lii moo ma intéressé lii laay lii laay def donc loolu soo ko defee soo ko defee pendant la semaine wala voilà, pendant même le le le le man léegi laa ko léegi léegi laa ko wàññi rek mais mais bu bu yàgg man euh, bu yàgg euh, j'avais tout le temps deux ou trois heures yoo xam ne. Mhm. Euh, je suis en cours. c'est pas parce que yegg nga yegg nga si benn niveau yi nga yaakaar ne waratoo jàng. Mhm. waratoo jàng si non non mhm. c'est ça il faut nga continuer il faut nga continuer surtout si surtout si domaine bi nekk c'est un domaine très compétitif. donc vraiment vraiment maire yi maire yi rek la ñuy la ñuy la ñuy jël soo soo nekkul maire tamit jéemal jéemal mhm. côtoyer ay maire jéemal nekk ci ci nekk ñi si kanam parce que classique bi rek toog si classique bi rek baaxul donc maintenant si sama blog j'ai j'ai plusieurs euh, j'ai liens mooy Ibrahima dans le cloud waaw <laughs> ah am ay liens yu bëri yoo xam ne parce que j'ai remarqué que, bon, uh-huh. avec le temps, j'ai de plus en plus de mal à écrire. Ouais, Donc, Pour, xam nga écrire bi moom dafa dafa dafa dafa parce que c'est chronophage. Ouais, mais mais ay module d' apprentissage parcours d' apprentissage yi nga xam ne mhm. c' est c' est intéressant mhm. yooyu yëpp manqué manqué dugal manqué dugal ci ci mhm. ci ci bloc bi donc parcours d' apprentissage bi moom moo lay nga am euh, profil de certification profil de certification moom moo lay nga xool lan moo la intéressé mun na nekk DevOps des fois nekkul sax lié à la technologie ah. Ouais, ça ouais, peut lié aux soft skills exactement si donc si. Mm. donc xool leen Microsoft Learn. ya -hmm. euh, y a Git aussi y a pas mal de de gens yoo xam ne euh, euh, si GitHub la ñuy partager seen seen surtout le plus important mooy pratique bi parce que pratique bi euh, vidéo yi baax na blog yi baax na lecture bi baax na. mais soo pratiqué wul rek. non no non mhm. doo mën a. doo mën a jàpp yenn yi te doo jànkuwanteeg yenn problème yi sax pour mun ko résoudre. pour mun a jàll exactement c'est ça mhm. c'est ça. Mhm. bi baax na. mais théorie bi généralement c'est du par défaut. donc da ngay ñëw rek jàll mais. <laughs> di nga xam ne soo nekkee entreprise. nekkul lu ñu la wax rek moom mooy am. exactement <laughs> donc da ngay da ngay da ngay jéem a jànkuwanteeg yenn yenn yenn difficultés yi. exactement ak networking bi. donc loolu moo tax. loolu moo tax euh, on fait euh, à travers plusieurs communautés on fait des des talks des webinaires donc c'est important nga mën a jaxasoo ak say say say père euh, say say naataandoo yoo naataangoo yoo xam ne ñu ngi liggéey déjà si affaire bi wala ñu ngi jéem a jéem a wut pour pour liggéey ci yooyu noonu échange bi am culture du feedback aussi Euh, xam lan la nit ñi yaakaar ci par exemple si sa contenu bi parce que contenu bi aussi moyen jàng la rek mu nekk vidéo mu nekk podcast mu nekk mu nekk n'importe quoi euh, jàng la tamit parce que di nga échanger ak nit xam point de vue am. Mhm. jàng ci moom. mu jàng ci yow. et cetera et cetera. Mhm. te loolu dafa am solo bu baax a baax et je pense que euh, conseil yi nga joxe nii. man dama koy sax jël ne war nañ ko appliquer ci technologie yëpp ci maanaam ci ci jàng la dak d'une manière générale quoi tu vois am na solo bu baax et je pense que euh, suñu frères yi suñu sœurs yi nga xamante ni ñu ñuy déglu à travers podcast bi euh, dinañ ci bàyyi xel bu baax a baax xam ne moo xam nga nekk informaticien nag moo xam nga nekk leneen ak leneen la mu ci doon euh, discipline bi nga wax ni dafa am solo tu ci lépp loo xamante ni bëgg nga ko xam bëgg nga ko mën tu vois tey su fekkee ne sax ay ay ay jaay ginaar moo moo la sur le net pour rechercher ko xam ko parce que toll nii li may wax rek mooy dañ ñoo ubbil àdduna bi dañ ñoo ubbil àdduna bi ñun nag ñooy xool lan moo ñu intéressé ci àdduna bi ñu dem connecté wu ci loolu xam-xam fi loisir baa ngi leneen leneen a fi mais ñun ñooy xool li ñuy intéressé ak li ñu war a mën a jëmal kanam ci ci li xalaat ñu connecté wu ci lool parce que àdduna bi dañ ko ubbi mais nag buñ ko ubbee nag lu baax ci biir lu bon a ngi ci biir lu perte de temps mu ngi ci biir mais donc self discipline boobu nag dafa am solo trop te moo lay permettre yow nga mën a voilà yegg ci yenn niveau yoo xamante ni ñëpp dañ naan eskay tu vois wala ñëpp dañ lay soxla euh, te je pense que xam-xam mooy defar réew. alors je pense Exactement. que tey jii nii blog bu Ibrahima mbóoj bi euh, moo nekk blog point Ibrahima Mbodj point com je pense que dinaa def euh, ci description bi lien bi su ngeen fa duggee man ah, man dugg naa ci euh, fan yi dugg naa ci j'ai beaucoup lu xool naa affaire yu bëri gis naa ne aussi am nga certification yu bëri ci euh, ci affaire yi quoi <laughs> ci Microsoft <laughs> ah oui ah oui ah oui master nga franchement et félicitations pour ça et je pense que jeunes yu bëri war nañ mën a inspiré wu ci lool euh, dugg leen ci blog bi ngeen xool ko dinaa ko partager incha allah ci ci ci ci description podcast bi alors Ibrahima lan ngay conseiller aussi entreprise yi nga xamante ni tey ñu ngi nekk Sénégal spécifiquement Sénégal te bëgg dugg ci. cloud Azure bi lan nga leen di conseiller rapidement. bon li li may conseiller euh, entreprise Sénégal moom conseiller entreprise yëpp ah. déjà foog nga mën a définir sa stratégie. yow lan la mooy sa la mooy sa objectif objectif que nga bëgg a dugg si cloud wala nga bañ a dugg ci cloud euh, gérer sa sa sa réglementation sa politique. Euh, est-ce que, est par exemple, en termes de résistance des données, en terme de classification des données, etc., est-ce que yow say données mën na dugg ci cloud euh, et et puis euh, gérer say euh, parce que li ma li ma doon wax sànq si sécurité bi euh, xam nañ social engineering nu mu nu mu nu mu kiwee mm-hmm, mm-hmm. nu mu amee mm-hmm. amee impact. si si si donc su fekkee da nga formé woo leen. Mhm. nga nga jël benn outil rek sànni leen ko noonu. Mhm. mën a ñu mën ci liggéey. Mhm. loolu mooy andi loolu mooy andi ay configuration yoo xam ne euh, euh, baaxul ay configuration yu exposé ay service donc la plupart du temps nekkul sax faille faille de sécurité mais faille de sécurité en elle-même euh, moom mooy andi brèche mais configuration yu baaxul configuration yu baaxul ñàkk xam moo andi ñàkk xam. formation ñàkk formation moo koy donc volet stratégique bi il faut nga étudier ko volet volet euh, formation bi exploitation bi foog nga fo nga foog nga étudier ko euh, soo ko mënul soo xamee ne amoo capacité bi nga jéem a xool ay professionnels yoo xam ne seen xam-xam màcc na si loolu. ñu jéem la conseiller. Mm-hmm. loolu moo loolu moo gën a loolu moo gën a kii sax. loolu moo mm-hmm. gën a am solo. Mm-hmm. loolu moo la moo gën a sécuriser. parce que yow am nga sa cœur de métier. Euh, cloud bi mooy li ma ko li ma ko waxee noonu ça te permet nga concentrer wu sa cœur de métier bi. donc au lieu ngay dem di defi cloud jëlal ko xam ne xam-xam màcc na si loolu nga ne ko man instant bi lii mooy sama objectif fii laa nekk fii laa bëgg a yegg. nan la nan laa mën a tirer parti ci cloud pour mën a mhm. yegg foofu exactement ça c'est sûr mhm. donc à à cet instant la noonu di nga mën a di nga mën a am visibilité ndax euh, en fonction de bon euh, ki nga jël comme conseiller euh, moom moo lay wax bon lii mën nañ ko def lii mënuñ ko def par exemple en termes de sécurité par exemple résidence des données wala voilà, classification des données par exemple lii nii Azure mënu ko permettre lii AWS mënu ko permettre et cetera et cetera donc nga am ay workaround derrière pour pour dire que par exemple je vais faire du Azure Stack par exemple hmm. puisque je ne peux pas aller dans le public je vais rester dans le privé donc il a plusieurs solutions yoo xam ne daal moo ngi ci marché bi mais tant que defoon définir woo mhm. say objectif mhm. définir woo say stratégie mhm. évaluer woo yan moyen nga mën a def pour yegg fi nga jëm ça va ça va risque d'être compliqué. non non day compliqué ça c'est sûr ça c'est sûr je pense que loolu moo tax sax ma ma ma pointé euh, les entreprises sénégalaises yi parce que comme li nga wax rek des fois da ngay gis ñoo xamante ni mun nañ dégg cloud cloud cloud dañëw rek dugg te am na prérequis yu bëri yoo xamante ni defuñ ko tu vois formation bi xam exactement la muy cloud est-ce que ñoom am nañ besoin dugg ci cloud bi tu vois est que ils sont prêts pour dugg ci cloud bi est-ce que am nañ lépp lu war a am donc yëpp ce sont des yoo xamante ni euh, je pense que entreprise yi balaa ñu ci dugg aussi war nañ ko xam bu baax war nañ euh, seen seen seen seen pense que tey jii nii am nañ ay personnes yoo xamante ni ils sont aptes à faire ça mel ni Ibrahima Mbodj tey entreprise sénégalaise boo xamante ni bëgg nga conseil ci yu noonu je pense que war ngeen ko mën a contacter tu vois je vais mettre contacts dans la dans la description du podcast comme ça ngeen mën a jokkoo ak moom discuter ak moom ci conseil ci en fait il faut que ubbeeku boobu am ci Sénégal je pense que ci entreprise yëpp ak suñ doom yi nga xamante ñu nekk bitim réew ak ñi nekk fii ci réew mi aussi tu donc ñu nga xamante ne dañuy échanger ñoom ci service yi def entreprise yi nekk Sénégal fokk ñu jëfandikoo ressource bi nga xamante ni am nañ ko parce que Sénégalais yi franchement macha allah voilà ils sont très intelligents tu bëgguma catu kenn mais ils bu baax franchement Ibrahima ci sa accès di nga ñëw ci euh, invitation bi parce que épisode bi nag jeex na parce que voilà parce que def nañ une heure onze minutes je pense tu vois lan moo nekk sa mot de la fin euh, balaa ñuy tëj émission bi. di la remercier rek ci invitation bi di la remercier ci échange mm-hmm. euh, parce que am na solo loolu li nga wax am na solo trop. Mm-hmm. bon li nga wax na solo loolu du lu bees mais. <laughs> mais. <laughs> mais mais en tout cas ma en tout cas maa ngi maa ngi ciy jàng maa ngi ci maa ngi ci euh, maa ngi lay remercier en tout cas ci ci échange bi am na solo lu bëri euh, di wax di wax nit ñi rek nañ ñu surtout étudiants yi ak ñi nga xam ne euh, peut-être ñu ngi def reconversion di dugg ci informatique bi keroog benn benn benn étudiant moo ngi may wax naan transition administrateur système réseau est-ce que est-ce que yomb na nga dem ci ci DevOps wala DevSecOps man la j'ai envie de dire euh, dara yombul. dara xëyul rek sotti. <laughs> ça c'est sûr. waaw nit nit nit juddul juddul rek am dix ans am quinze ans am vingt ans. <laughs> donc il faut wala juddul rek am sikkim quoi. <laughs> waaw waaw waaw. ça c'est vrai il faut gravir les échelons. il faut gravir les échelons mooy comme li ma expliqué tout à l'heure rek il faut nga am. Euh, sens su état d'esprit wu xam li nga bëgg définir yan moyen ngay am pour pour atteindre ko donc aujourd'hui yow wax nga ko sànq euh, le monde est plus ouvert donc internet bi y a tout même s'il y bien et du mal donc yow yaa xool daal euh, la mooy sa la mooy sa intérêt nga nga nga nga jël ko xam ne xam ne ñun am na ñun nu ñu yaayre am nañ ay valeur donc mhm. peu importe fu ñu nekk am na lu ñu war mhm. euh, am na lu ñu war a taxawee parce que suñuy waajur am na nu ñuy xoolee donc euh, exemple bi tamit euh, ni ñi ni ñuy taxawee ni ñuy ni ñuy xalaatee war nañ ko war nañ ko mën a xool donc donc voilà di remercier ñëpp ci participants yi ci auditeurs yi ñi nga xam ne ñu ngi déglu di podcast bi di eh, di yaakaar naa ne eh, di yaakaar ni eh, li ñuy wax am na solo si ñoom dina leen dina leen dimbali si seen si seen carrière mhm. et puis di finir mhm. di daanelee ci ñu ngi toujours si écosystème bi à travers ay community Telenet Daara IT Euh, ñu jàng informatique donc y' a y' a plein de choses yoo xam ne ay mhm. braves garçons et filles yoo xam ne. Mhm. hommes et femmes sax laay wax. parce am nañ ci kim ñi am nañ ci. waaw <laughs> ah oui ça c'est sûr. <laughs> ñi ay borom euh, njaboot leen quoi. waaw oui ça c'est sûr. donc mm. loolu mooy loolu mooy construire écosystème daal mm. échange networking mm. euh, yaa ngi doon wax sànq entreprise man am na ay entreprise yoo xam ne mm-hmm. parce que man man salarié la donc yenn yenn mission yi man du ko mën a def mais je fais tout pour mm-hmm. trouver ay entreprise yoo xam ne ñoo ngi Sénégal ils font du cloud ils font de l'Azure moom ma def promotion mais par exemple tu prends des gens comme Netexio euh, Mohamed Hadj par exemple donc mm-hmm. qui est impliqué non seulement dans son wàllu business mais qui aussi impliqué ci. Mhm. ci euh, webinaire yi ñuy def. Euh, et cetera et cetera. donc voilà quoi. waaw e ouais. et je pense que cette personne là man war naa ko inviter aussi parce que maa ngi koy prévoir parce que gis naa ne moom tamit acteur bu mag la ci wàllu wi donc euh, mais maa ngi prévoir beneen épisode bu xam nga affaire yi ni ñu koy arranger dafa xaw a grave tu vois cest à euh, ah. après après Windows Microsoft et tout dañuy jàll ci Linux mais suñ paree nag dañuy tëj affaire yi et je pense que loolu surprise lay doon après quoi dinañ tëj affaire yi <laughs> Ibrahima franchement ñu ngi lay gërëm bu baax a baax ñu ngi jox aussi dox daje euh, auditeurs yi ci beneen week-end incha allah ñu waxaat ci beneen épisode ak ci beneen thème bu bees euh, toujours ci podcast Wolof Tech incha allah allez merci beaucoup passez un très bon week-end